dinaa may loolu pour nga xam ne képp ku géntati loo xam ne daf la tiital nga jàng ko génti ko loolu du du loo xam ne lu ñuy làmbaatu la vrai la la man su ma géntee dara bëgguma mu am dama koy wax su ma ko fàttee sax ba ay fan mën naa koo wax pour gént ki bañ am pour fekkee ci diggante bi gént gi amut yaa ngi dégg man mën naa gént dara sol sama dàll comme ça suppose ma gént dara Dakar ma xëy taal sama oto dem Dakar réaliser ci gént gi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 gént nag dafa am ay xaaj gént gi gën a mucc ñaari gént la gént yàlla suñu borom ak gént yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gi ci topp mooy gént nit yàlla yi wala saxaaba yi wala mooy nit yàlla yi rek gannaaw yonent ak ñi ci topp loolu moom moo ci tànne moom moo ci topp ba nga xam ne dem na di dem di dem di dem di dem di dem seytaane nag des fois mu feeñu ne ci gént wan la loo xam ne amut boo ci sukkandikoo mën na laa tarxisloo loolu moo tax ñuy soxloo ko mën a firi gént ndax bu la xabaaru saytaane dikkalee nga mën koo laaj nit eh. mu waxal la des fois nga gént gis nit mu dikkee la melukaan boo xam ne fa ngay jaaree bañ nit ka fekk kooku eh. yoonam néew ci seytaane moo melloo kooku eh. loolu moo tax da yonentu da ko dawalee boppam ngir bañ saytaane melloo la melloo kenn fekk yonentu la yaa salaa salaam nga mere ko fekk yonentu kenn du ko mere loolu la yonentu di bañ moo tax mu ne képp ku ma gis man nga gis parce que saytaane du ko tricher. xam nga saytaane bu doon tricher yonent bi. waaw yonent mën naa mën na saytaane mën na laa feeñu. waaw ci melo ci ci kan melo bi. waaw di jëf jëfee woo xam ne mën nga mën nga ko caa meree wala nga jëppee ko ca. wala nga xeebee ko ca. dëgg la yaa ngi dégg. te boo ko defee xalaku loolu moo tax nag muy wattandikuloo loolu ci seytaane moo tax saytaane du jël melo yonent bi. salaay salaam parce que loolu moo tax yoon bi salaay salaam ne képp ku gént gis ma. moom nga gis. yaa ngi dégg. mu ne képp ku ko gént gis. moom nga gis. dëgg la lay tegtal yërmande. képp lay tegtal yërmande yërmande yàlla. ci ñun ci yonent bi. ndax yoon bi salaay salaam mooy jëmm yërmande yàlla. loolu mooy njëriñu gént. léegi nag su fekkee ne nag nit yàlla la koo xam ne da nga ko gént loolu communication la il faut nga am ku ko mën a tafsir ku ko mën a firi nga mën koo xam léegi nga gént sa mbokk mu muy tëdd ak yow xam mm-hmm. nga des nga gis nit koo xam ne day sëy ak guddi wala muy sëy ak rakkam bu mu bokkal ndey ak baay guddi bu yeewoo du mën a si gis sa xool papaam fekk papa ci yëgu ko loolu seytaane yi. yi nga xam ne ay jinne lañ. jinne yi nga xam ne seytaane moo leen possédé. kuy yu mag yi. ñooy def melokaan yu bon yooyu. fu ko nit gisee ci boppam. na xam ne yàlla boole na ko kuréel jinne war naa jóg ci boppam seet ku xam jinne mu teqale ko ak moom sinon dana ko yàqal àddina da gis koo xam ne day gént sëye koo xam ne. koo nga bokkal ndey ak bàyyi ngay gént tëdd ak moom. wala nga gént tëdd ak sa papa. wala ngay gën di tëdd sa yaay wala ngay ci ba ngeen baal ma ci kàddu gi ngeen gën tëdd ak sa sœur boo bokkal ndey ak baay wala sa tànta wala sa sa nijaay wala sa yooyu da koy gént fekk nijaay jooyu yoonam newu ca moom saay-saay bi moom mooy indi melokaanu kooku loolu moo loolu nag na yàlla li dawala yonent bi moo tax yàlla seetaan ko ci loolu moo tax ku ko gént gis moom nga gis seytaane du tricher melokaanam ndax seytaane bi jën la sa melaw nijaay. waaw ànd ak yow ci ci sëy bi. sa sa nijaay ma nga néegam. dëgg la yaa ngi dégg. yow yaa ngi sa néeg. wala mu ngi dëkk ba. yaa nga beneen réew. di ko gént mu muy muy tëdd yow. nga yaakaar ne xelam daa nekk ci yow. wala nga yaakaar ne da da laa yittewoo. wala day jóg ci sa ay mbir. fekk saay-saay bi. moo indi melakaan boobu. moo tax gént lu ñu war jàngale la. comme ça nit ki. bañ di am en. ci nit ki fekk mu ngi ko jële à travers gént. bokkul ak nag ki nga xam ne. moom lu mu gént da koo gis gis la am amut gént. am na ñoo xam ne gis lañ am amuñ gént am ñoo xam ne gént lañ am am ñoo xam ne amuñ gént ay nelaw yu neex lañ am maanaam reer bu neex am na ci gént nag faaral am na reer bu neex reer ba suur waxtaanee dara ba ngoon jot nga tëdd nelaw ne ca loola ba guddi jot ba bët set nga ne gént naan naa nga fekk demoo fenn sa reer a neex sa jotaay ak ak sa jotaay yaa yaa ngi dégg fekk sa jotaay neex werante baa bëri wala sax yàlla xam même nga xam ne dañuy faral di gént maanaam bu toogee di waxtaane mën nañ dem nelaw gént ko. fekk loolu seen mémoire bi. Ah. mémoire bi ngay wax loolu. yaa ngi muy sensible ci yow. sa septième sens di ko enregistré wala sa mémoire capturé ko. nga génn muy déliré wu. nga tëdd nelaw muy déliré wu maanaam muy reprendre at chaîne bi. comme chaîne bi comme chaîne bi nu mu demee woon nga yaakaar ne. Ah. da gént rek géntoo gént dafa am. yooyu c'est important ñu leeral ko. ñu leeral ko dëgg la. yaa ngi dégg. waaw rêve dafa am gént dafa am. dëgg la léegi nag. waaw luy di nelaw rek après lim yendoo woon ko si bu tëddee di nelaw. waaw parce que kooku. Euh, ñaar lay doon. waaw ku ku dëggu dana ko loolu de ku dëggu da koy dal. ku dëggu ku dëggu nit ku dëggu. waaw loolu da koy dal ndax lu mu wax da koy gëm. Euh. du wax lu mu gëmut te lu mu wax da dogu. loolu foo ko fekk ci nit. waaw seetal li ma la wax rek. dëgg la man ñi ko dëggu mooy am loolu. lépp lu mu wax. gëm ko da koy takk. du ko nangu mu rëcc ko. bu nelawee nag bu soree lool. waaw bi day bàyyeeku. di di di di di di di yi mu di ko libéré. moo làmmiñ bi di ko communiqué. te ni élément bi mu àndal. élément bu dëggu lay doon.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 mu nekk fukki xul wala ak benn boo bëggul mu am su dee dafa nekk gént boo xam ne da nga bëgg mu am nga def fatiha def benn xul walaaw def fukki xul walaaw ba pare doo ko def salaatul fatiha. fukki yoon fukki yoon. Mhm. léegi nag waaw. ma laaxee biir. waaw ki nga xam ne bu génte yeewu mu ne France dem. waaw bu yeewoo mu dem. mu dem ki nga xam ne moom heure bu géntee day leer nañ. waaw te génteen da koo soxla. waaw te saa yu yeewoo gént gën ne may.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 ah gars yi ñëwoon naa jàngale gént. waaw fi ñu toll nii kay ñun ñëpp a ngi dem not. waaw voilà nañ koy nañ nañ bàyyi xel li may wax. bala mu mu bañ ko def comme que demoon ca armée la ñu si néew ñu ne jàng fukki lixlaas la ak benn lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas nga dëgg de am na ñoo xam ne boo nee lixlaas rek am na lixlaas lixlaas lixlaas wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ah. léegi nag koo xam ne da nga bëgg